asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñëw ne di nuyu di leen ziare bu baax a baax euh, dellusiwaat ci benn ci bis yi nga xam ne bis yi ñuy waajalee màggalu Kazu Rajab gi nga xam ne mi ngi war doon ñaar fukk ak juróom wala ñaar fukk ak juróom-benn jàpp ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru rajab 1445 dëppoo ak juróom-ñaari fan ci weeru février 2024 incha allahu taala war a nekk bis bu àllarba waajtaay yooyu nag. comité d'organisation bi ànd ak sëti Cheikh Mamadou Fadal yi di def ay bis yu ñu de tuddee rajabiyaat bis yooyu di rajabiyaat yi nag ñu ci feddali kóllëre yi doxoon diggante Cheikh Mamadou Fadal radiyallahu anhu ak mboolem ñi nga xam ne seqoon na ko at mu jot ñu tànn ci ñenn feeñal kóllëre gi feddaliwaat ko njaboot gi nga xam ne xamoon nañ ko gën koo jàpp ñi nga xam ne xamuñu ko woon xam ne doxoon diggante Cheikh Mamadou Fadal ak jëmm ji nga xam ne moom la ñuy fekki di fi def euh, rajabiyaat yi kon nag euh, tey jii nag di euh, altine di fukki fan ak euh, juróom-ñaar ci weeru rajab 1445 dëppoo ak ñaar ko fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier 2024 njabootu Cheikh Ahmadoul Fadal gépp di seeti Cheikh Ahmadoul Fadal yi ak comité d'organisation bi ak seeni wayjur ku mel ne ki Serigne Ahmadou Bari mi nga xam ne moom moo jiite comité d'organisation bi ànd ak magam Serigne Aliou Mbacké moom Cheikh Mamadou Fadal ànd ak Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké bu ñu waxee fa ñu jëm rek dañ xam ne ñooñu seen cëra nga fa fan la ñu jëm mooy Daarul Muxti Daarul Muxti di foo xam ne njabootu Cheikh Mamadou Fadal jamono ju nekk war nañuy feddali kóllëre ga dox seen diggante ak ñoom ngir maam Cerno Ibrahima Faati mi nga xam ne moo jàngal Cheikh Mamadou Fadal ca moom it lu nekk ci moom Cheikhul Xadim radiyallahu anhu moo ko ci def moom maam Cerno di rakkam sasoon ci moom def lépp ci moom njabootu Cheikh Mamadou kon fu ñu jëmee foofu rek jëm nañ fa jëm nañ fa nga xam ne war nañ faa jëm fa nga xam ne ñëpp duñ kenn du laajte eh, lan lañ fay wuti ndax kolëre gu dëgër gu sel gu màgg goo xam ne dox na seen diggante kon njabootuk Chamanul Fadal foofa la ñu jëm kan la ñuy fekki tey ci njabootuk maam Thierno Ibra Faty Mbacké radiyallahu anhu ki ñuy fekki mooy Serigne Modou Habib Mbacké moom maam Thierno Ibra Faty njabootuk Serigne Modou Habib Mbacké sëñ Modou Habib mi nga xam ne seqoon na ak Cheikh Amadou Fadal radiyallahu anhu kolëre gu rafet seen diggante dëgëroon lool fedil loola dekkal loola dundal loola xamal ko ñi nga xam ne ñoo ko xamut woon fàttali ko ñi ko xamoon moo tax njabootu Cheikh Mamadou Fadal Mbacké radiyallahu anhu ñëpp jug nañ sëriñ Mata bi nag mooy wajiru sëriñ Cheikh Asta Faye mi nga xam ne koo xam xam ko ci Cheikh Mamadou Fadal xam ko ci témoignage rafet yi nga xam ne jamono ñekk mi ngi ko def sëriñ Fadilu euh, radiyallahu anhu njabootu Cheikh Mamadou Fadal nag euh, ñu ñëpp départ nañ euh, Touba ci kër Cheikh Mamadou Fadal jiile combat bu rafet mm, ngir dundal ak mbokk di jéego yu ko mat di ñaan borom bi tabaaraka taala ñu fay aw yu di jéego yu coloré yu yaatu yu bari yu dëgër yoo xam ne moom moo ci laltaayu mm, yooyu démb ak bërki demb coloré xam-xam coloré mbokk coloré yu baree baree baree bëri bi nga xamee ne ñëw nañ ba jub Daarul Muxti fekk nañ njabootu maam Cerno Ibra Faati taxaw ci buntu Daarul Muxti dand ko ay kilomètres Eh, di teeru njabaru Cheikh Amadou Fadal googu ñu fekk fa Serigne Mbacke moom Serigne Moustapha May fekk fa Serigne Mahmoudan moom Serigne Moustapha May fekk fa soxna maam marem Garas di taawu Serigne Cheikh Assou Faye mi nga xam ne moom mooy eh, kilifa njabootu Serigne eh, Abibu Mbacke Serigne Modou Habib Mbacke mi nga xam ne moom la ñuy mm, jagleel bis bi tey. ngeen gis mbooloo mi noonu ñëpp daal di dëgmal nag daarul moxti bi ñu duggee daarul moxti eh, convoi bi jëm na ca kër soxna Mariama Kunta moom Cheikh Amadou Fadal di jàmbaar di borom daara ju rëy rëy rëy di doomi Cheikh Amadou Fadal radiyallahu anhu njaboot gi dem fa njëkkee ca moom nuyu ko ànd ak moom dëgmal si fi nga xam ne moom fi la ñuy defee waxtaan wa di ci pencum daarul moxti ñu àgg fa fekk fa mbooloo mu takku ñuy teeru njabootu Cheikh Amadou ak mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak ñoom Mm, ci bis bu màgg bu rafet bu am solo bi mbokk yi kon lii jataay la bu am solo Serigne Sam Bousso Abdourahman def fa waxtaan bu ama ama am solo kaddu yu bari jib na fa yoo xam ne kaddu yu xam-xam la kaddu yu dundal mbokk la kaddu yu fàttali démb la kaddu yu xamal nit ñi ko xamu doon la di lu am solo loo xam ne lu mat a yaatal la mbokk yi kon loolu mooy liñ leen doon indil nii ngeen di jàkkaarloo ñoom ñu bay leen ngeen ànd ak kon ñoom ci waxtaan yu am solo yooyu ñu leen wax ngeen déglu ko ba mu jeex insha allahu taala xatti bi mawlidi yaduumu lana bishran yafi xayra mawlidi waqaani ilaahi kulla durrin bijaahi man lahu dahra xatti duuna lagwin wa mufsidi muhammadun ilmuxtaaru lam yaati mithluhu wa laysa yaji mithlun lahu nicma sayyidi maraami min almawla ataani bila adan bijaahi shafii alaalamina muhammadi na yóbbaale mboolem délégation bi yépp waaye nag di jaarale ci ñoom nuyoo ñi nga xam ne mooy kilifa yu baax yi ñu fekk si tàmbalee ci sëriñ Bachirou Anta Niang di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool te may ko ak wér waaye ñaa ziyaare ka ñaanal sëñ Cheikh Assou Faye mi nga xam ne moo dalal mbooloo mi tey fii ci kër Cheikh Mouhamadul Habib xam naa ne programme bi ni mu fas yéene demee incha allah mooy dinañu ubbi jataay bi ci ay ayat quraaniya sëriñ Cheikhouna Mbacké moom moo koy jàng bu ñu noppee sëñ Mahmoudan moom sëñ Moustapha May mi président daayira sët yi dina yëkkati kàddu yi mu dalale gan ñi bu ñu noppee euh, dañuy dugg ci waxtaan wi waxtaan wi nag docteur sëriñ Sam so moom moo koy def euh, sëriñ Sam nag ki koy dalal mooy sëriñ Fallou moom soxna Mariama Kunte mu Cheikh Amadou Fadel moom itam ñu ngi koy jot li am nuyoo di ko ñaanal suñ borom tabaraka wa la moom mi nga xam ne moo dalal njaboot gi tey fii ci Daarul yi euh, bu ñu jógee ci kàddu yooyu na ñëw ci kàddu goo xam ne day wax ci relation bi nga xam ne sëñ Fallu ak sëñ Mahamadul Habib seqoon nañu ko sëñ Mahmoudan moom sëñ Basiru Antaña moo ko yëkkati buñ ca jógee kàddu sëñ Cheikh Assou da koo jox sëriñ Basiru moom sëñ Abdul Quddus moom mooy wax ci turam buñ ca jógee nag kàddu gan ñi daal di ñëw sëñ bi daal di ñaanal mbooloo mi kon dañuy woo sëriñ Cheikh Mbacke sëñ Cheikh naa Mbacke mu ñëw yëkkatul ñu ay ayat quraan ya ñu ubbee ko jataay bi incha allah. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ۖ وأثابهم فتحا قريبا sadaqallaahu al yàlla la suñu borom def mag te di mag mu barkeel ginnaaw bi ñu génnee ci barkeelu gi ñu doon barkeelu ci alquranul karim dañuy woo sëñ Mahmoudan moom sëñ Moustapha May mu yëkkati kàddu yi daral gan ñi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu bokki jullit yi fi nekk yëpp ak bokki taalibe yëpp tey jéggulu kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko yëkkati ci kanamu kilifa yi nga xam ne waruñoo yëkkati seen kàddu seen kanam waaye nag ginnaaw sëñ Cheikh mi nga xam mooy kilifa kër sëñ Maodo bi moo ma jox ndigal ma wax loolu képp moo tax ma yëkkati sama kàddu maa ngi ciy jéggulu bu baax di sant bu baax njabootu sëriñ Mouhamadul Fadil gi nga xamante ni bi ñu amee yéene jël bés bi tudd ko Cheikh Mouhamadul Habib muy loo xamante ni lu am solo la te it lu waroon a am bu yàgg la xëy na yàlla da koy door dogal waaye fu ngeen mbégte mi ci njabootu Sëñ Mouhamadul Habib gam kawe na njor te xol sedd na ci lool ñu ngi ci sant yàlla bu baax te di leen ci sant tey ji tey ji tey tey tey siyaara bu baax sëriñ Muntaxa moom mi xalifa général ndax moom laa waroon a jiitu jiital ak boroom abul baraka mi nga xam mooy moo jiitu mooy njabootu moo jiitu ci njabootu Cheikh Mouhamadul Fadil yàlla yàggal ko fi ak sëriñ Cheikh mi nga xam moo jiite kër sëñ Modou Abib ak tur wax ci turu sëriñ yi te sëñ Mbàkkeem sëñ Mor Anta di moom Cheikh Moussa may mag yi may wax ci kàddoom di jégalu bu baax waaye ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax te di leen gërëm ci lii di ñaan yàlla suñ borom lépp lu ngeen ci yéene rek yàlla defal leen ko te defal na ko ñu yàgg koo seq ci darajey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi barke Cheikh Ahmadul Xadim xam naa ñàkk mën a wax gi ak ñàkk ko waajal moo tax waaye maa ngi jéggalu ñëpp lu ci dëgg rek ñu jéggal moo ko te xam ne amoon nañ yéene wax lu ko gën a rafet wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ Mahmoudan kàddu yi rafet na tubarkalla eh, dañuy daal di tàmbali dugg ci waxtaan wi muy conférence bi ni ma ko waxe woon léegi sëriñ Fàllu moom soxna Marema Kunta mooy dalal docteur Khadim docteur Samb sëñ Samb So mu war def waxtaan bu am solo ci euh, thème bi incha allah sëñ Fall dina ci ñëw kon dañ koy jox rek ko defee mu ubbil ko suñ Fall bismillah aouzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala seydina muhammad wa ala alihi wa ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Seexul Xadim bu baax a baax di nuyu ak ziar Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal sunu boroom yàggal ko fi ba naal yi mu am yëpp sunu boroom mottal ko ci jamonoom di ñaanal ak ziar itam Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Ibrahim borom Daarul Muxti moom itam di ko ñaanal. li mu nama liggéeyal Cheikh Ibrahim sunu borom mottali ñu koy ñaanal itam sëriñ Abul Baraka xalif Cheikh Amadou Fadal noonu lañ ko ñaanal itam sëriñ Cheikh ñu fas yéene waxtaane thème boo xam ne dafa jëm ci yoonu murit xam ngeen ne saabu Kazu Rajab jubsee daayira bi nga xam ne mooy daayira ahfaadu Cheikh Mouhamadoul Fadel muy daayira bi lëkkale sëti Cheikh Mouhamadoul Fadel yëpp dañuy amal ay jataay yoo xam ne dañ koy waajale màggal gi ñu tuddee ko ay rajabiyaat di ko defee ci ay warat yu fasantikoo ci réew mi te saa buñ ci jàppee bis ñu am kuñ ko jagleel ngir fàttali ak fàttaliku la relation bi nga xam ne Cheikh Amadou Fadel amoon na ko ak ñenn ci ñi nga xam ne ñu nekk ci réew mi tey nag ñu ñëw fii ci Daarul Muxti ci ëttub Cheikh Amadou Habib di fi waxtaanee li thème bi nga xam ne moo jëm ci naka la liggéeyu mbooloo fese ci naal wala projet yi nga xam ne yoonu murit taxawal na ko ba mu sosoo ba léegi loolu nag day fekk système boo xam ne moom lañ jël tey daanaka ci màggal gi muy Sëñ Fàllu ak jumaa ji ndax exposition bi nga xam ne moom la def ci màggal gi sax loolu mooy tem bi mooy Sëñ Fàllu ak jumaa ji bu ñu waxee jumaa ji nag projet la ci biir projet yi nga xam ne yoonu murit am na ko waaye jamono Sëñ Moodu Mustafaa ba léegi xam ngeen am na naar yu bare bare yoo xam ne murit yi taxawal nañ ko waaye lu ci ëpp dañ naan jamono Sëñ Moodu Mustafaa Sëñ def na nàngam suñ fàllu bu ñëwee def na nàngam suñu Abdoulaye def na nàngam ba ci kii fi nekk yàlla fi yàgg ñu ne nag am na am na ci benn mbir mu am solo moo xam ne man ñu koy waxtaanee mooy ñooñu bi ñu dikkee taxawal nekk ci bopp yoon wi naa fii ay mbir ñu gis ne bu mbir yi sottee mbooloo mi da ci am solo lool liggéeyu mbooloo loolu moo tax ñu ne tey dañu def ab taxaw seetlu ci naka la liggéeyu mbooloo feeñee rawatina naka la fëse ci naal yi nga xam ne eh, yoonu murid naal na ko kon loolu mooy thème bi nga xam ne moom lañu ñu sëriñ Sam Bousso Abdourahmane war a waxtaanal sëriñ Sam Bousso Abdourahmane nag daanaka doo doon koo xam ne jar na ñu koy présenté ndax boroom xam-xam la boo xam ne daanaka ci lu ci ëpp ci jataayi xam-xam yi nga xam ne dañu koy amal ci yoon wi dañ ko ciy gis mu am ci taxawaay bu ama am am solo looloo waral euh, daayira bi bi ñu jàppee thème bi ñu jàpp ne moom kat am na euh, xam-xam ak daya boo xam ne war naa mën a tax mu man ñu cee waxtaanal kon ñun duñu guddal ndax moom mooy def waxtaan wi kon ñun dañ koy ubbir noonu rek boo defee jox ko mu dikkal ñu ci naka la liggéeyu mbooloo fese ci naalu yoonu murid kon sëñ sëñ Sam rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin wa mawlana muhammadin wa ala wa sahabatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kilifa yu tedd yi fi teew soxna yu baax yi fi teew noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen balu àq di jiital ziyaare cheikh leen muntaqa xafidahu llahu taala wa ayadahu wa nasara ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool yokk ko ak wér di ko ñaanal Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moo nekk ci boppu njabootu borom daaru di ko ñaanal kilifa jotaay bii nga xam ne moo nekk ci boppu njabootu Cheikh Mouhamadul Habib waaye di nuyuwaat bu baax sunu sang yi nga xam ne ñoo fi teew teewal fii Serigne Abul Baraka xafisahu llahu taala wa ayadahu wa nasara muy njabootu Cheikh Mahmoud Fadel tàmbale ko ci Sëriñ Ali ibn Cheikh Mahmoud Fadel waaye di ziyaare suñu sang yëpp daal Cheikh Mahmoud Badawi di suñu jëwriñ ziyaare Cheikh Awa Balla di ziyaare bu baax Cheikh Abdul Xaadir ñi fi teew ak Cheikh Mamadou Moustapha waaye njabootu borom daaru bi fi nekk yépp di ziyaare baax soxna su tedd si fi nekk muy soxna ma Kunta ak mbooleem soxna yu baax yi nga xam ne ñoom la àndal nekk ci jotaay bi di ziyaare sama mbokki taalibe yi fi nekk yépp di ñëw rek ci tomb bu am solo bi nga xam ne daayira sëti Cheikh Mamadou Fadil moom lañu ñu na mu doon lu ama am solo ni ñu ko daan defe rek mooy di tànn waxtaan yu am njariñ wu tem central boo xam ne waxtaan yi ñuy waxtaan yépp da ciy dugg te ren mu nekk hmm. jërëjëf euh, xam naa bala ma jàll rek beral ab ziar Serigne Bachir Mbacke ibn Cheikh Abdou Khoudous mi nga xam ne moo yor kàddu kër gi suñu xarit suñu wëllëre di ko ñaanal bu baax di wax ne thème bi nga xam ne njabootu Cheikh Amadou muy sët yi daayira Hadaa'iqul Fadaa'il moom lañu ñu tànn muy liggéeyu mbooloo nim mën a defare ab société taxawaay bi mu ci mën a am waaye nag jotaay bi ñu tànnal ko moom ni ko Cheikh Mamadou Fadil jiitalee laltaaye ko ñu war cee waxtaane liggéeyu mbooloo ni mu fese ci li nga xam ne yoonu mu sottal na ko ci ay liggéey ak i naaw loolu nag buñ ko dee waxtaane ab soññee la ci sunu bopp ak soññee ñi nga xam ne dañoo war a xool ci tànki mag ña fañ jaaroon jéem faa jaar ndax la mag ñi amoon ñu mën caa tànku lum tuuti tuuti ku ne xam na ne sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu dafa tabax yoonam wi teg ko ci ay kenu mu bokk ci kenu yooyu mooy liggéey ci boppam liggéey ngir fàggu lu lew loo mën a suturlewoo luy tax nga moom sa bopp waaye it liggéey delloo ko ci yoonu yàlla te mooy xidma loolu nag xidma boobu nga xam ne ci la murit yi jaare ba defar lu ama am solo taxawal yu ama am solo yu àdduna bépp di seede dafa doon loo xam ne nañ ko doxale muy liggéeyin woo xam ne mbooloo mi dañ koy ànd di ko def loola daf mat di waxtaane ndax lu ñu war a sàmm la ci sunu ndono la bokk ñu war koy nafar saa bu nekk di jàng ci mag ñi ñu jiitu nañ ca taxawe woon ba nëgëni sii lépp loo xam ne luy tax ñu gën koo mën a fonk gën koo mën a taxawu ba li nekk ci suñu kanam ci ay defi ñu mën a jàmmarloog moom ba jéggi ko ba li sëriñ bi bëggoon ci ñun waxtu wu nekk ñu nekk ca lépp loo xam ne luy njariñ la di jariñ réew mi di jariñ yoon wi ñu mën caa nekk sax ca dàkk kon waxtaan wi waxtaanu fàttalente rek lay doon ci wàllu googu ñu di ko tënk rek xam naa ne ndax waxtu wi ni mu tëddee jéem a tàmbalee ko ci rek liggéeyu mbooloo ni mu doone loo xam ne dañ ko mooñaale yoonu murit sëriñ bi daf ko mooñaale yoonu murit doog a ñëw nag joxe ay misaal ci liggéeyu mbooloo ni mu sottale lu baree bari ci yoonu morit waaye bu boobaa it dañ ci jël benn misaal taxaw ci taxawaay bu gàtt mooy liggéeyu jumaay Tuubaa ndax ku ne xam na ne jotaay bi buñ ko jotaayu Cheikh Mawul Fadil buñ cay waxtaane liggéeyu mbooloo bëgg a joxe ay exemple jàpp naa ne mën nañoo jël liggéeyu jumaa ji taxaw ci tuuti rek xool liñ ci mën a jàngate ci niñ ko nose woon ak niñ ko liggéeyee doog a ñëw nag daaneele ci loo xam ne nag ni ñuy def ba liggéeyu mbooloo jamono ji ñu toll nu muy gën a mën a amee njariñ nu ko gën a mën a jariñoo kon bu ñëwee ci tomb bu njëkk bi ngir waxtaane liggéeyu mbooloo ni ko sëriñ bi mooñaalee ci yoon wi loolu moom dañuy tàmbali xam ne liggéeyu mbooloo bokkut ak mbooloo muy liggéey mbooloo muy liggéey mën nañoo ànd di liggéey kenn ku nekk di liggéeyal sa bopp waaye saa buñ ne waxee liggéeyu mbooloo mooy liggéey ba moo leen boole ñu am jubluwaay am luñ bëgg a réaliser am fuñ bëgg a yegg di jàppalante nosu ngir mën a sottal loola loolu moo tax ñu wax liggéeyu mbooloo waaye tekkiwul mbooloo muy liggéey mbooloo muy liggéey mën nañuy liggéey ca la ñuy liggéey du doon liggéeyu mbooloo ñoom ndax kenn ku nekk mën ngaa nekk ci sa bopp wala kenn ku nekk di doxale noo xam ne bokkut ak lu ñu nas ci wala bokkuñu jëmukaay bu boobaa mbooloo muy liggéey lañ waaye nekkatul liggéeyu mbooloo loolu nag buñ seetloo sëriñ bi ci boppam moom dañuy gis ne dafa yittewoo mbooloo ci ay mbindam ak i ñaanam ñu ànd booloo nekk wenn say nekk jamaa loolu bari na lool fu mu ko tudd di ko ñaan suñ boroom ndax boo demee ca fulkul mashhur waliyahab bi kulli xarfin minha jamaatan xaadimatan wa sunha ñaan suñu boroom ci darajay araf wu nekk ci xasida gi mu may ko ci mbooloo muy liggéey kon mbooloo muy liggéey njariñ li danañ ko gisee bu amutoon njariñ sëriñ bi du ko ñaan kon liggéeyu mbooloo sëriñ bi dafa ñaan mbooloo ci boppam moo xam ne dañuy ànd dañuy ànd di liggéey boo gisee jaamu yàlla mu ñaan mbooloo muy ànd di jaamu yàlla ba ci mas matlabul fawzayni da caa wax ne waltus tusbitan fii jamaatan tuqiim as-salawaati al-xamsa daban yaa xakim foofu Sëriñ Tuubaa mi ngi fiy ñaan mbooloo mu ànd di jaamu yàlla di julli julli juróom sax dàkk ci ci ak buñ ne Touba it mooy dëkki Serigne Touba yëpp it ñaan ko day law ba àgg fa ba muy ñaan ay sëtam it da koo def jamu muy mbooloo wahab lana zurriyatan tudimu al amala saaliha yaa qadimu mbooloo moo xam ne samay njaboot lañ yoo xam ne dañuy saxal jëf ju baax dañuy safal lu baax àndandoo di liggéey sëriñ bi mi ngi ñaan ñëpp nekk ànd ak moom ci li nga xam ne moom la bëgg mooy ñu ànd liggéey loo xam ne dañuy taxe ci àdduna taxe ci àllaaxira mu ne woon wa sayyiril jamia lii ansaara bi jaahihi wa rud liyal amsaara kon yooyu yëpp dafay wane sëriñ bi ni mu yittewoo woon mbooloo mu ànd di liggéey ak mbooloo mu ànd di jaamu yàlla loolee sax wane la ne tarbiya bii nga xam ne da ko doon def da caa bëggoon mbooloo mu ànd ñu leen di tarbiya ndax mbooloo day soññeente bokk na ci yi nga xam ne munta ñàkk ki jëm ci yoonu yàlla mu am mbooloo moo xam ne day ànd ak ñoom ca yoon woowee ca dox boobee muy dox di dimbaleenteeg ñoom waaye moo tax mu waxoon ca xuqal bukaau wa rufqatun wa hiya asxaabun lahum himamun maa al wafaai bi sidqin fil uxuwaati mboo ay àndandoo yoo xam ne dañuy am yitte nga xam ne mi ngi ciy junjaale mbooloo lay tax ñu ànd mën a yegg fan jëm dañuy bokk yitte dañuy bokk yitte waaye ñu bokkul yitte mënuñoo ànd ñu bokkul jëmuwaay mënuñoo ànd waaye ànd booba yi nekk mbooloo da koy ànd ak respecté ay engagement mooy lépp loo xam ne dige nga ko nga matal ko sëkk loole bokk na ci li nga xam ne sart na ko ci mbooloo ñi war a ànd ngir mën a liggéey mu boole ci nag dëggu ci mbokkoo googu waaye nga gis ne noonu mu ko bindee ñaan ko bu ñu seetlee ni mu doon yare di samp ay daara mbooloo di fa nekk mbooloo mu nekk mu wutal leen jëwriñ loole ab junj la ab joxañ la ci ak nos goo xam ne ci luñ nekk dañuy nekk mbooloo di ñu ànd ñu leen di yar ñu ànd ñu di di liggéey kon dafa mel ne boo xoolee ci jëfa doxalinam boo xoolee ci mbindam boo xoolee ci ñaanam lépp dañuy junj junj ne dañoo war a nekk mbooloo mu ànd nekk wenn say di yëkkandoo di tegandoo ànd di liggéey ngir fa ñu jëm ñu mën faa àgg looloo tax murit yi teel a dégg loolu teel a xam loolu teel a mooñu ci yarub Sëriñ Tuubaa radiyallaahu nga gis ma nga tàmbale ci ay tooli àllarba ñu tàmbali di liggéey ànd di mbooloo fu fu ay taalibe nekk fexe bay liggéeyal sëriñ bi di liggéeyal loo xam ne day day jariñ lislaam day jëriñ jullit yi bañ demee ba jóge ci dëkki kaw yi taalibe yu bari dem ci taax yi it gis nañ ñu fexe bay doon ay mbooloo nekk ay daayira yi nga xam ne dañuy nekk mbooloo ànd di liggéey ànd di jaamu yàlla ànd ngir di defar seen ruux kon loolu ab junju la rek ci wane ne Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ñu nekk mbooloo ànd di liggéey da koo ñor ba di moom koy ñaan suñu borom subhaanahu wa taala waaye loolu nag gis nañ lim lim jur mu jur murit yi ci jamonoy sëriñ bi fe gox bu nekk mbooloo ma fa nekk ku ci nekk da ngay liggéey di fàgg lu lew waaye am na liggéey buñ bokk boo xam ne liggéeyub sëriñ bi lay doon loolee nga xam ne mooy ruuxul jamaa mooy esprit liggéey boo xam ne dañ koy ànd dañoo daal di gis lam ñu lam tàmbale jur gis nga projet yi fi gën a rëy ci diine yoonu murit ñoo ko taxawal fii ci Sénégal tàmbulee ko ca euh, jumaay njaareem nga xam ne contexte bañ ko defee muy contexte crise mondiale damay wax ne boo xoolee liggéey yi nga xam ne murit yi ànd nañ sottal ko yi yëpp mën nga ne ci jamonoy crise la ku xam na ne jumaay njaareem kat guerre guerre bu njëkk bi la jeer dajeel gis nañ jumaay Tuuba guerre bi jaar jaar fi ba ci liggéey bu mujj bi bu rëy bii nga xam ne seex Mouhamadou Mountakha xafisahullahu taala wa ayyadahu taxawal nañ ko gis nañ ne ci jamono Covid lañ ko taxawal ci lañ ko liggéey ba taxawul benn yoon kon li muy wane kon mooy murid yi liggéeyu mbooloo nga xam ne sëriñ bi yar na leen ci tàggat leen ci ca lañ jaar ba lu baree baree bari ñu sottal ko ca lañ jaar ba indi raay bi Touba ci lañ tabaxe jumaay njaareem jumaay Touba ci lañ ko tabaxe boo demee xel kom mën nga koo joxe misaal boo demee masaalikul jinaan gii nga xam ne moo nekk ndakaaru tey misaal la ci ba ci complexe Cheikh Ahmadul Khadim muy daara Sëriñ Tuubaa radiyallaahu ji nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha taxawal na ko yooyu damaa tudd yi nga xam ne dafa nekk ci rek ci centre bi waaye kër goo dem da nga fa fekk ay mën nga fa jox ay misaal ci liggéey yu rëy yu fa nekk yoo xam ne mbooloo ñoo ànd liggéey ko fii ci Daaru Mooti Daaru Salaam foo mën a dem danga fekk loolu nga gis kuréel yi nga xam ne taxaw nañ di ay institution ci euh, murit gi di ay daayira yu mag nga gis mat Matlabul Fawzayni ba muy tabax hôpital bi mbooloo ñoo ànd defar ko nga gis Hizbut Tarqiyyah li mu liggéey nga gis suuba ca kanam yi mu liggéey nga gis ay yeneen mbooloo yoo xam ne dañoo tax ci wàllu santé wala wàllu éducation lu mel ni mu asat Azhar ittihaadu atbaa'il xadim yu baree bari yoo xam ne buñ ko doon lim du du jeex waaye dañuy jël rek ngir wane liggéeyu mbooloo ni ñu ko ni mu fësee ci euh, liggéey bii nga xam ne mooy jumaay Tuubaa jumaay Tuubaa lu tax ñu jël ko comme misaal ñaari mbir moo tax mooy dafay dafa dafa nekk modèle model ci wàllu mbooloo mu ànd liggéey ànd am fuñ jëm ba noppi nosu nosu koo xam ne loolu lu munta ñàkk la ci ñu mën a réussir ci jamono yu jafe ñu taxawal loo xam ne lu rëy rëy la jumaay Tuubaa ji damay wax ne nañ bàyyi xel ne liñ ci ñàkk ci alal booba murit yi bëree guñ woon noonu alal waaye takku ak Pastef moo tax ñu taxawal ko ndax dañuy wax ne booba 1963 buñ koy inauguré Sénégal ëpputoon 3 millions ci ay habitants loola boo ca xoolee la ci doonoon ay murit demee wut noonu ca booba euro xamaguñu woon euro xamaguñu woon dollar xamaguñu woon benn monnaie bu daan jóge ci biti lépp fii lañ ko liggéeyee ci tool yi lañ ko liggéeyee ba noppi taxawal fi lu toll noonu kon loolu li muy wane mooy takku li muy wane mooy pas-pas waaye li muy wane moo di ne organisation bu am solo boo xam ne xëy na dinañ ci mën a wax tuuti jumaa ji boo demee téere yu bari bind nañ ko ci ba ci xadaayqul fadaayil bi nga xam ne mujj naa génn am na lu am solo lañ ci bind sëriñ Sidi Bousso moom sëriñ Moulay am na lu mu ci bind ñu bëree bari sëñ Moxtaar Bintaloo wala sëñ ah sëñ Madloo Moxtaar bari nañ waaye da dañ ciy tënk rek fi mu tàmbalee nga xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko woote waaye ba mu ko wootee da caa wanewaale naka lañu war a ànd di liggéey ndax ba mu wooyee sëñ Siidi day day wax ne sëriñ bi dafa woo Maam Thierno woo Cheikh Moustapha woo sëñ Mbàkke Buso woo sëñ Balla Cooro woo sëñ Masamba jox leen ndigal li daa di woo seex yëpp yaatal ko ci ñoom bi leen joxee ndigal li xam nañ ne njëlbeen gi diir bu gàtt mu sant leen kenn ku nekk joxe ñaar fukki ñaar fukk juróom-ñett ci dërëmi jamono jooja loolu jàpp naa ne euh, ku ko doon seet léegi xaw naa takku tuuti waaye ci diir bu gàtt ñu dajale lim bu am solo ci jamono jooja ñu ngi koy nattale ci cinq millions cinq millions xam naa booba euh, ci léegi ku ko doon nat ay centaine de million la war doon bu nekkul sax ay milliards waaw dama cee ñi mu wut a dogu bi ma doon jéem a xool dërëm ci période boobu lu dërëm boobu ba nga xam ne or la woon ñi ngi ko doon ñi ngi ñi ngi doon wax ne cinq dollars la doon tollool loolu boo ko estimé day ay mat vingt cinq milliards ci suñ jamono ji loolu nag mënu ma cee dogu ndax euh, sama xam-xam da cee jëmu dama ci doon jéem a xool rek xëy na ñi nekk ay spécialiste ci wàllu monnaie mën nañoo wax léegi juróomi million yooyee lu mu ci suñu jamono ji waaye kon ci wax nañ ne ci septembre 1926 ci la maam Thierno ñëwoon ñëween woon Touba ngir ñu tàmbali liggéey bi nekk ca di ci waajtaay bi ci xam nga ne ca at ma ca la lay xew-xew Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ñibbisi ñibbisi njaari ci Touba toogaat nañ ab diir ngir ay jafe-jafe yu amoon yoo xam ne waxtaan wi du barabam yu dugg waaye ba 1932 ci lañ yëkkatiwaat nag liggéey bi Cheikh Moustapha ci ak njàmbaaram ànd ak mag ñi ci seenu dogu ñu fexe ba galgal yi tubaab yi doon teg ngir gàllankoor liggéey bi ñu fexe ba teg galgal yooyu yëpp ba tàmbaliwaat liggéey bi ba nga xam ne première phase bi mu ngi noppi 1940 Cheikh Cheikh Mamadou Fadil tàmbali liggéey bi nag 1949 ba 1963 ci jamono jooju nga xam ne ci lañ ko inauguré. waaye buñ xoolee liñ ci mën a gisee ci liggéey bi rëy bi mu rëy ak niñ ko doxale dañ ci mën a jàngate ay conditions yoo xam ne mooy tax liggéeyu mbooloo ñoom maanaam fiñ ci àgg ak liñ ci am liñ ci mën a jàngate ginnaaw bu ndimbalul yàlla jàlle ak barkeb sëriñ bi waaye ci wàllu xelu doomu aadama ci àdduna rek mën nañ koo tënk ci ay ponk ponk ba ci njëkk liggéeyu mbooloo ngir lii ñu ci am ci jumaay Tuubaa ji dafa am yu ci feeñ ba ci njëkk feeñ mooy charia légitimité day am mooy ka war a digle na ko digle ka ko war a digle na ko digle waaye bu ko diglee ña koy dégg nañ am pas-pasu jëfe ko ca ñaar yooyu dafa am ci ndigal li nga xam ne moom la Serigne Touba joxe woon ndax mag ñëpp maase woon nañ gëm ne buñ ko defut yàlla dina wàcce ay malaaka yu ko defar ndax sëriñ bi am na ko ba noppi pas-pas solo ci nit ki di dogu xam ne lii muy lii muy def même bu ca nekkut bu ca yaafusee dana àgg loolu dana tax mu góor góorlu xam ne moom dépendrul ci moom pas-pas boobu nit ko bu ko amee dana def ndax dana xam ne lii moom fawu mu yegg kon loolu gis nañ ko ci ñaareel bi liggéeyu mbooloo fii gis gis nañ jubluwaay bi dafa leeroon sëriñ bi dafa woo taalibe yi wax leen lu leer li bëgg muy tabax jumaa fii ci Tuubaa loolu dafa bokk ci sart ab liggéey ñu xam jubluwaay ba lan la waaye léegi saa bu ñu demee bay wax ne lan lañ fi bëgg fan lañu war a jëm lu tax mu jóg loolu dana indi ak tayel dana indi ak yaafus waaye bu fekkee ne ndigal li leer na ki ko war a joxe joxe na ko ñi ko dégg am nañ pas-pas bi loolu ci li nga xam ne ci ci ci ay nattukaay yu ñuy natte liggéeyu mbooloo waaye la ca topp mooy ñetteel ba mooy ñu am financement boo xam ne bu bu bu bu bu wóor la ca financement bu wóor boobu dafa am luy tax mu mën a am ndax sëriñ bi ni mu waxee ne ba mu sasee ne kenn ku nekk ku ko mën na ko def nga xam ne kenn ku nekk da doon joxeel boppam di jox bu ko mënee muy joxeel njabootam ba noppi ñu seddale ko mu doon lu yaatu booba sëriñ bi dañu ci doon jàngalaale ne saa bu ñu amatee luñ bëgg a def yoon waa ngi noonu kon mooy am financement am ay moyens yoo xam ne moo war a sottal liggéey bi mu nekk moyens yoo xam ne yu am garanti la loolu lu am solo la ci liggéeyu mbooloo ci gis nañ ko ci liggéeyu jumaa ji waaye it ñu am lu ko ci ay nit li ñuy wax ressources humaines yoo xam ne yu ko mën a liggéey la yooyu nag day am loo xam ne am nafi dañ koy jëfandikoo loo xam ne soxla nañ ko ci ressources humaines ci amuñu ko dañ ko doon wuti feneen loolu màndarga ci booba amaguñ xëy na ingénieurs yi ñu soxla woon dañ ko wuti architecte yi ñu soxla woon amaguñ ko dañ ko wuti techniciens yi soxla woon yéen ca amut dañ koo wuti waaye li nga xam ne dañ koo am muy mason yi ñu doon liggéey loolu dañ koo am ci suñu biir ba noppi nag nos ko ci anam goo xam ne bu yéeme la bokk na ci li nga xam ne luy tax liggéeyu mbooloo ñu gis ko ci jumaa ji mooy li ñuy wax qiyaada rachida mooy ñi ko jiite am gis-gis bu sori ba noppi xam nu ñuy jiite mbooloo mi xam na ñuy mobiliser mbooloo mi xam li nga xam ne ci lañ leen di soññee ci lañ leen di ñaaxe loolu yàlla da koo defaloon tàmbalee ko ci Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bi mu fi jógee Cheikh Moustapha bi mu fi jógee Cheikh Mouhamadou Fadil ak mbooleem ku mës a jiite xam nga am nga xiyaada rachida mooy am mën ngaa jiite jiite jiite gu jub man ngaa wommat nit ñi jëme leen ci yoon wu jub mën nga leen a wax lii tax ñu mobiliser wu ñoom ñëpp loolu suñu borom subhaanahu wa taala defaroon na ko ci Mouhamadou Fadil waaye ñu gis nag organisation bu yéeme xëy na détails yu organisation bi bu mënuñ cee dugg waaye dañ ñuy junj rek ne li gën a doy waar mooy lépp lañ documenté fim ne nii dañoo documenté ba documenté fi mu ne nii ña seex bu nekk ña nga joxe woon kilifa yi kenn ku nekk ka nga joxe woon am nañ seen xam nañ seeni i su ma doon joxe misaal ci Daarul Muxti dama ci jox ay benn benn rek dañuy wax ne sëñ Modou Awa Balla joxe woon na Moustapha Thiam Touba Touré euh, Touba Touré Mesere Mbayloo Cheikh Ndiaye Balla Mbacke Saliou Guèye Dame Guèye matul kan ci misaal ba demee si Cheikh Awa Balla joxe woon na Bachirou Deme Modou Ndiaye Ousmane Dieng Sayar Ngom Omar Touré boo demee suñu ay dara joxe na Thierno Diop Thierno Gadiaga Touba Niang Mbaylo boo demee suñu Abdou na suñu Abdou Khoudous Diop ci misaal nga xam ne kon tey ña doon liggéey ci jumaa ja tey seeni sët dañuy xam ne ñii kat seen baay seen maam liggéey na ci liggéey sëñ Tuubaa bi loolu dina am solo mooy wane mag ñi farlu gi ñu farlu woon nga xam ne lépp tënk nañ ko bàyyiwuñ dara mu doon loo xam ne dafa maanaam anarchie la woon àgg nañ ci ñi doon liggéey dëkk yi doon liggéey am na document bu sëñ euh, sëñ siiji sëñ Mulaay indi di ca wax dëkk bu nekk bis ba nga doon war a ñëw ñoom Mesare Mbàkke Bawal noonu la ko toppee ci dëkk yi bis dëkk bu nekk ñu ne bis sàngam ñooy ñëw ci liggéey bi loolu ngir organisation bu mel noonu loolu ca jamono jooja ba noppi yemuñ ci lépp ñu tënk ko loolu bind yu rëy la yoo xam ne war nañ koo jàng lépp dañ koo jëloon ci ak yitte joxoon ko yitte lépp ñu bind ko mag ñi dañ ko doon dañ ko doon bind kon loolu day wane rek ne liggéey bi nga xam ne liggéeyu mbooloo la dafa am ay kenu yu muy lalu yuy tax ñu man caa àgg fañ ca jëm kon loolu li may daaneele mooy loolu it dañ ko war a bàyyi xel ci jamono juñ mën a nekk xam ne liggéey ànd di liggéey muy liggéeyu mbooloo liy tax mu ànt liy tax ñu di ci réussir dafa am ay ponk yoo xam ne mën nañ ko caa tënke ba ca njëkk mooy fokk liggéey bi nga xam ne moom la mbooloo mi di ànd liggéey am jubluwaay yu leer fokk ñu am jubluwaay leer léeg dañ gis mbooloo mu bari woote am yéene am pëseef toog waaye bu ñu toogee fañ jëm ak lañ bëgg a def du leer loolu buñ buñ bu ñu doxee tuuti rek da ngay gis mun a sax ndax fañ jëmoon moo leerutoon kon jubluwaay bu leer lu mënta ñàkk la ndax mooy tax li nga soxla ci ay moye nga man koo xam la nga soxla ci ay jumtukaay la nga soxla ci ñu ñu ñu war a liggéey liggéey ba loolu lépp nga man koo xam dara doo du la lu ci doon loo xam ne lu ñuy làmbatu la te damay wax ne jubluwaay bu leer teel koo am loolu dañ koy jànge ci Sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu Sëñ Tuubaa mooy ki nga xam ne kenn du wax ne am na ñu àndoon ak moom te xamuñu lu mu ànd ak ñoom dafa teel a wax fa mu na nawaytu xaw da man yalaw zuuna biya ilayka ma sunnati xayri anbiya sama yéene mooy nangam xam nga ki woote nit ñi yow nga ne leen man li ma bëgg mooy lii mu leer kooku mooy objectif bu leer Sëñ Tuubaa dafa teeloon a leeral objectif am li ma bëgg ci yéen mooy ngeen texe yaqawlu ahmadu ila saada yad'ul mala bil ilmi wal ibada kon moom fa mu jëmoon dafa leeroon ci boppam waaye yoon moo waroon a jaar jumtukaay yam waroon a jëfandikoo mooy leeroon ci boppam mu leeral ko mag ñi ànd ci ak ñoom kon liggéey mbooloo mu ànd di liggéey jubluwaay boobu da caa mënta ñàkk waaye jubluwaay bu amee planifié ko maanaam planification wax ne fii la war a yegg fii lañ ko war a jaar ci état bii la war a jaar loolu bu amul lu pas-pas ba bari bari mën nañoo dem bu ci biir am ñu taayal am ñu daj damay wax ne da nga gis mbooloo moo xam ne dañuy sànku ab liggéey waaye comme jubluwaaye leerut lool xam nañ bëgg nañoo defar dara lu rëy loo xam ne ay milliards la waaye dañoo war a planifier ne kat at mu njëkk mi lii lañ ci war a sotteel ñaareelu at mi lii lañ ci war a sotteel ñetteelu at mi lii lañ war a sotteel yi liggéey bi juróomi at la war a am teel koo xamandoo buñ ko defut dañuy tàmbali toog am at ñu ne waa ana lañ joxe woon lu tax àggagul ba nëgëni fekk te wërta àgg nëgëni waaye li tax xamuñu ne wërta àgg waxuñu woon kañ kañ kañ la war a àgg fi ne da gis loo xam ñu ne dañuy ba mu tàmbalee léegi am na fukki at waaye àggagul fekk te dafa war am fukki at waaye comme li planifié wuñu woon ne at mu njëkk mi nii la def da gis ku ñëw ne li man ban dalay joxe ba léegi daal fondement fondement àgg fondement bi yéegagul fekk te dëgg la foofu la war a toll waaye xamuñu ko woon kon loolu planification lu am solo la planification da caa bokk it nga ne fii laa bëgg jëm lii lii laay jëfandikoo pour yegg fa loolu damay wax ne sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu bi mu jógee wax ne damay jihaad dafa wax ne nii laay jihaade inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa abdan xadiman wal muhaymin shahidu kon dañ ko war a roy ci ñu bëgg a def ñu xam wan yoon lañuy jaar ca teer a déclaré loola ñii mbooloo mi xam ko waaye la ca topp mu ñetteelu ponk bi nga xam ne mënut ñàkk ci liggéeyu mbooloo mu ngi mu réussir mooy ca ñu war koo jànge ci mag ñi ak njàngaleem Sëñ Tuubaa mooy organisation organisation dafa doon loo xam ne munta ñàkk te mooy tax kenn ku nekk la nga man ñu féetale la fa waaw ndax danga gis liggéey boo xam ne dañuy xool rek ka gën a yàgg ca kër ga wala ka fa gën a mag ñu dénk ko ko te fekk te amul xam-xam ba bu ko amul ndax da nit ki mën naa am passeef ca du am xam-xam nga gis ku am xam-xam te du am passeef kon dañ coo war a sédd am xam-xam bi am passeef bi waaye da gis ko am xam-xam am passeef waaye amul jot waaw ñu daal diw diw daal moom ni mu mel ni mu toll ci liggéey bi liggéey bu toll nii cam ni ak ni dayoo bi mu am ci kër gi mu mënuñu su ko ñàkk jiital te moom am na passeef am na xam-xam waaye amul jot ca fii liggéey liggéeyu mbooloo su bu jëmee ci sëñ bi kenn du ñu mee joxe ngànt liggéey yu bari loolu koy ja loolu koy jafeel dañuy dañuy jox nit ki ab cër rus na ne man dantu na ko te mënu ko amul jotam wala gis koo xam ne am na jotam waaye wérul dafa xiibam waaw yooyu yëpp dañ ko war a seet liggéey Sëñ Tuubaa ndax kenn du gàntu kon ku ñuy dénk dañuy war a seet ndax lañ koy dénk mane na ko wala manewu ko loolu ci wàllu organisation la bokk Sëñ Tuubaa dafa séddale woon gis nañ ko ku bëgg a jàng demal ci diw ku bëgg a jàng ak liggéey demal ci maam Thierno ku bëgg a jàng demal ci suñu bu so ku bëgg a liggéey demal ci suñu Mandumbe loolu ak maam Cheikh Fall yooyu ak junju la ci wane ne am na lenn lu nekk spécialisation dafa am solo ci mbir waaw ku nekk loolu yonent bi sallallahu alayhi moo ko njëkk a jàngale waaye Sëñ waa dafaa ñëw ab appliqué ko kenn mooy kon liggéeyu mbooloo ngir ñu mën cee réussir fokkum ñu organiser wu kenn ku nekk ñu jox la la nga man rôle yi ñu séddale ko bu baax a baax loolu dañ koy jànge ci Serigne Touba radiyallahu anhu di ko jànge ci mag ñi jànge ko ci Cheikhul Fadil jànge ko ci Cheikhul Moustapha kon loolu yi dañ ko war a sàmm ba léegi la ca topp mooy diisoo Serigne Touba da daan diisoo ak mag ñi waaw lu mbir mu ñëw moo xam dafa dafa dafa concerné ñëpp dégg nañ ba tàyyi mu woolu maam Thierno diisoo ak moom woolu Serigne Mbàkke Bousso diisoo ak moom Serigne Moustapha sax am na lu mu bind am na mbooloo mu tuddee woon ahlul xàll wal aqd maanaam ñi nga xam ne day bu doon léegi ñu naan ñooy ñooy ñooy ñooy euh, xam na daal euh, conseil consultatif bu doon léegi lañ ko wax ñu ne njaareem sëñ Tuubaa amoon na loolu nga xam ne mbir mu ñëw ñoom lay diisool ca loola kon loolu it dañ ko cee dañ ko war a jàng saa bu nekk di diisoo ñu xam ñu xam ndax la man mag dénkoon waxoon na sëñ Malick Ba sëñ defe naa moo ko waxoon booy wut booy wut ku koy diisool na doon ku dañu réer ku amul reer waaw ki ngay diisool na xam waaye na am dara waaye ki nga xam ne moom euh, day nekk ci sa wet waxtu nekk mu bëgg booy dem nga di jox ko dara moom mën naa am booy diisoog moom lam jàpp ne neex na la rek la lay wax lam jàpp ne yow boo ko waxee jotaay ba dana fa gën a yaatu loolu la lay wax kon moo tax diisoo am na solo waaye xool ña ngay diisool tànn leer am qualité yu nekk ci ñoom loolu it dafa am solo lool xëy na li ci mujj ci yi nga xam ne mënut a maanaam ci yi nga xam ne dañ koy tënk rek mooy discipline indibaat mooy yar bi nga xam ne moom lañ xamee woon murid bu ne yar nag yemul ci boo bo bo ci ni ngay nuyoo ni ngay toogee waaye yar bokk na ci luñ la fuñ la defloo nga def loola fuñ la yemloo nga yem foofu ci loolu lu am solo ci liggéeyu mbooloo la loolu yonent bi sallallahu alayhi wa mos naa wax ne maanaam ki texe tuuba li abdin axasa bi inaani farasihi fi sabilillahi ashasa rasuhu mukbarra qadamaahu in kaana fi lxiraasati kaana fi lxiraasa wa in kaana fi saaqa kaana fi saaqa maanaam yow daal na nga way way goo xam ne buñ ne la taxawal ci bunt bi ala kulli xaal ci bunt ba ngay taxaw buñ ne la yow mii del maye ndox ala kulli xaal yow maye ndox ngay def waaye da gis liggéeyu mbooloo boo xam ne yow fële lañ la togloo nga dégg ñaar ñuy déyante fii nga daal di ñëw bëgg fu ne nga bëgg faa taxaw lu ne nga bëgg caa bokk dañuy dem ba suñu organisation léegi ñay organiser lay léeg ñooy jaxase jotaay ya ndax maanaam kenn ku nekk du xam fan la war a nekk ñuy ànd ñoom ñëpp du jëlaw jëlaw loolu ci liggéeyu mbooloo bu am solo foofu la yéese xëy na loolu damay joxe misaal rek mu ñu gën a jege waaye loolu am solo ca mag ñi loolu dañ cee meloon noo xam ne lu jéggi na dayoo waaw kuñ ne lii lañ la dénk loola doo ca boole leen te da nga ko rafetal te loolu loolu lay wax ne jamono foofu la àgg léegi damay wax ne fi ñu àgg ci wàllu gestion mën nañ koo jàng ci sëñ tubaa mën nañ koo jàng ci mag ñi nga xam ne ñoom la sëñ tubaa yaroon jëlu ñu di ko jëggaani xel kon xëy na li ñuy daanee la rek mooy wax ne lii ñu am sëriñ tubaa jàngal nu ko euh, mag ñi appliqué ko ba ci application bu teew bi nga xam Cheikh Mouhamed Mountakha wane na ko ci mu jàmmaam nga xam ne ci wàllu képp koo xam ne murit nga wat ga nga mane ñëw nga jàppee ko ci liggéey bi loolu lu am solo la ndax danga gis koo xam ne lam man doon naa tooj menn mbokk moo xam ne directeur u banque la woon am pëseef lool demoon xel koom waaye ba mu ñëwee daanaka tëdd na ay ay ay ay ay diir bu yàgg ma ne ko li nga def baax na lool waaye nag fexe woon ba lañ fay lañ fay soxla nga def ca lu ama am solo loolu jàpp naa ne lu baax la médecin bi mën a ñëw fekk ñu feebar ay murit yu néew doole nga mën leen opérer gratuitement liggéey boobu lu ama am solo la jàpp naa ne moo moo moo ëpp solo nga ñëw joxe addiye ñaari junni waaw ndax ki ngay consulter sa consultation yow yaa ngi fayeeku kenn ku nekk ñaari junni loolu xaalal nga yendu woon nga ne bis sàngam may naa ko daaru moxti man ex professeur la boo xam ne mënuñu maa maa li may fay cher na waaye damaa jël sama bis ci weer wala ci at danaa ñëw daaru moxti xit ma ci sama xam-xam boobu jàpp naa ne loolu yu mel noonu ñu xalaat ci wàllu xidma bi mais kenn ku nekk fa nga mane nga defe foofa loolu dina tax mu gën a am njariñ dina tax mu gën a mu gën a am doole koy may wax ne liggéeyu mbooloo daal gis nañ li mu ñu jural xam nañ ko dañuy fexe ba jàpp ci gën koo sàmm na ko mag ñi defee jàng ci Cheikh Amadou Fadl jàng Cheikh Amadou Moustapha jàng ci mag ñëpp rek ci niñ ko dunde kër koo dem tey boo ca waxtaanoon bu la mag ña waxee ñoom ba ñuy liggéey nañ doon liggéeyee da ngay xam ne ñii kat Serigne Touba moo leen yar ma jàpp ne nag loolu dafa war a mën a développer Sénégal dafa war a mën a développer Afrique waxuma la yoonu murit kese kon loolu ndona la lu ñu ci suñu borom jox jaar ci Serigne Touba kon loolu lu am solo la maa ngi jéglu nag ndax euh, damay gaawtu ndax xam naa ne waxtu wi xat na kon damay yemale foofu kàddu yi di jéglu bu baax sama sang yi nga xam ne ñoo nekk fii sama ginnaaw euh, te xam ne noo ñoom noonu jàngal wax ci seen wet ñu ngi koy jégglu toog gi ñu nii ci seen wet ci kaw loolu ñu ngi koy jéggulu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Sam. ñoo ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax te di la gërëm te di la jéggalu ci xataayu waxtu bi ndax xam nañ ne li nga waajaloon ëpp na lool ëpp na fuuf li nga xam ne moom nga wax waaye xat-xati jamono ak xataay waxtu yi moo tax xëy na lépp mënu woon a mënu woon a génn boo defee sëñ defe naa matal na liñ doon séntu ci moom ci wax ci waxtaan wi wane na solos liggéeyu mbooloo ci yoonu murit mu njëkkee ko ci ne liggéeyu mbooloo ak yoonu murit maanaam liggéeyu mbooloo dañ koo mooñe ci yoon dañ ko mooñaale ak yoonu murit yoonu murit bi muy sosu dafa sosoo ci mbooloo ba sëriñ bi daan ñaan mbooloo moo xam ne dañuy takk doon benn di ko liggéeyal mu mel ne ni ngeen ko xam ne sëriñ moom lu mu ñaan rek fekk na maam ba noppi noonu la ko suñu borom defalee mu am mbooloo moo xam ne sëñ bi masee am càkkuteef ci lenn rek mbooloo ma jug nañ taxaw ba loola sotti ni ko boroom daaru daan waxee ne sëriñ bi kat lu mu bëgg dina am te lu ma sant dinaa ko def noonu ko borom daara doon waxee noonu pas-pas boobu suñ sàmbari wax moo amoon ci murid yëpp nga xam ne suñ bi jógee rek lu mu bëgg rek balaay murid yi am jàmm dañuy am dañuy dañuy taxaw ba loola sotti mu ne nag loolu am na ay résultats yoo xam ne mën nañ cee teg loxo mën nañ cee mën nañ koo làmb daj ko mën nañ koo xool gis ko muy jumaay tàmbale ko ci jumaay njaaréem ja waaye ak jumaay Tuubaa ji ak raay bi ba ci euh, université bi nga xam ne moo mujj ci naal yi mën nañ cee ñu rombale jumaa yi masaalik ak yu bare bëri yoo xam ne luñ mën a laal la waaye itam loolu rek du réalisation ndax réalisation mën naa nekk matériel waaye itam mën naa nekk immatériel maanaam ay mbir yoo xam ne yoon wi am na ko surtout ci wàllu xam-xam ci wàllu organisation te loolu lépp mbooloo mooy ñooy taxaw ñooy xalaat ndax ñii seen doole lañ am ñii seen alal ñii seen xam-xam taxaw di xalaat ba yoon wi tool fi mu toll tey mu dikk itam yi nga xam ne ay institution la yoo xam ne mbooloo moo koy taxawal ngir gën a organiser liggéeyu mbooloo mi muy lu mel ni ay daayira ak yu ni mel wala ay mbooloo moo xam ay comité lay doon ay association ak lu mën a doon loo xam ne rek li ko tax jóg mooy boole am mbooloo ngir mel na liggéey ngir liggéey boo xam ne la jëm ci yoon wi mu wax itam ci li tax liggéeyu mbooloo boobu mën a sottal dara mu ne bi ci njëkk mooy pas-pas maanaam ki ñi nga xam ne ci ñoom la ndigal li jëm dañuy am pas-pas boo xam ne dañuy gëm liñ leen woo ne loolu lu ko lu jara sonn la loolu bokk na ci li nga xam ne moo àggale yoonu mu fi mu àgg tey waaye bu loolu amee ba noppi ñu organiser wu organisation bi suñu saam wax na wax na wax na ci waaye indi na ci tamit ay yoo xam ne lu ñu war xoolaat la maanaam loo xam ne xëy na buñ ko gënoon a xoolaat ci wàllu organisation dina gën a dina gën a baax lu ci mel ne kenn ku nekk xam li nga man ak fi nga mën a féete ndax euh, lu yéene yéene lu yéene yi rëy rëy rëy kenn ku ci nekk tam daa am loo man am loo mënul kon bokk na ci lii tax liggéey mbooloo mi mën a mën a mën a antu mooy kenn ku nekk yam fi ñu la yam loo te def li nga xam ne moom moom nga mën ak itam ay moyens ay moyens moo xam aw nit lay doon moo xam itam alal lay doon waaye moo xam itam xam-xam lay doon ak itam planification ak méthode yooyu yëpp indi na ko muy ñu xam fi ñu jëm ak naka la ñuy def ba àgg fa kon daal ci tënk suñ saam euh, indil nañu kon ñi nga xam ne noonu la liggéeyu mbooloo fese ci yoonu murid comme que nag fi lañu koy defee ci dëkk bi xëy na dañ ciy profité wàll rek fàttaliwaale jumaa ji nga xam ne Cheikh Amadou Bachir euh, naal na ko maanaam naal na yeesalaat ko ginnaaw bi ko ñi ko fi wuutu taxawale ba agsi fii kon defe naa waxtaan suñu sàmm bu ñu ko déggee di ngeen gën a farluwaat wala danañu gën a farluwaat ci liggéeyu jumaa ji gën a jàppale Cheikh Amadou Bachir ba mu am li mu bëgg ci liggéey boobu kon nag defe naa dañuy yamale foofu suñuy kaddu dellu di santaat bu baax baax sëñ Sam di sant mbokk yëpp ci teewlu gi ak dal gi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu